degré de compréhension yi nan la mën a uutee traitement de l'information bi mën a uutee ci benn discours boo xam ne benn nit a ko def. waaw mais seulement que euh, kon ñun ñoo am problème français ah. alors yéen ñi may laaj. sama invité bi mu ngi tudd Maty Sarr Niang xam naa <laughs> gars yi peut-être dafa am ñoo xam ne moom la dégg naa ah, ci commentaire yi acca. peut-être euh, dafa am ñoo xam ne danoo danoo am problème mu français. Mhm. ndax loolu dafay am problème mu dégg-dégg dafa am. mais nag aussi euh, lu ñuy naan dafa am ñoo xam ne tamit bañ du bëgg loolu tamit am na ci ndax euh, quoi qu'on puisse dire euh, si si si média bi nga xam ne man ca laa bokk donc li ci doon gën xam nga mooy ma féetee ak ñoom. Mhm. mais laal la man sama àdduna musuma far nit ci loo xamante ni du dëgg te du tey laa koy commencé. moo tax affaire de solidarité corpora corporation yooyu noonu man gëw ma ko. Mhm. gis nga nit bu defee naka su dul noonu dañ koy teg ci yoon parce que loolu moo koy dimbali. Mhm. dafa ni nag ci ñoom. seen diabolisation bi du tey lañ ko commencé bi ñu commencé diaboliser Ousmane Sonko bu fekkoon ni réseaux sociaux yi nekkuñu fi ndax moment bi nu ko woowee candidat réseaux sociaux yi temps boobu noonu lañ la ci bëri nekkoon di rétablir la vérité commençant par man donc bu fekkoon ni euh, média euh, média classique bi rek ci loon si ñu ñenn ñi ci ñoom li ñu doon topp di ko wax ak di ko def Ousmane Sonko ci loolu rek lan doon basé wu da ngay jàpp ni lu yàlla bind Ousmane Sonko moo ci gën a bon. kon nag comme seen pexe jubul ba Ousmane Sonko yàlla def na ni moom la àndal ba tax tey jëlee nii jomaay mu falu ba moom mu jël ko def ko premier ministre muy doxal kon bañ du bëgg seen une suite logique mais seulement ñu wax leen que ni nag vraiment ce serait vraiment ridicule parce que le mot ne pas de trop nga nekk ci dëkk boo xamante ni yow sa doomu dëkk ñeneen ñi ñu ngi koy bàkk ci ay mbaaxam yow nga ëlbatiku nga ne da nga koy xas di ko ŋàññ te li nga xam ne depuis ay at yaa ngi koy def ndax depuis 2019 ba tey affaire yi changé wul wala depuis 2015 bi ñu ko dàqee euh, fon kii impôt domaine ba tey mbir yi changé wul te terewul boobu ba tey yàlla mu ngi def nit ñi di ko bëgg ba jël ko wóolu ko avec 54 virgule et quelques pour cent ba teg ko à la tête la magistrature borom 35 pour cent yi nga dégg ñu ne daf ñu wax ne dafa war a retourné wu muy Amadou Ba fu mu retourné wu jëm mu war a dellu ci ci langue politique yi ñii ne est-ce que du dafa war a ber daaraam ñii ne dafa war a dellu après solo vous lan nga jàpp ni tey moom bu ko taxawee war ko opposé wu nan la war a taxawee selon yow sa sa sa gis-gis. Amadou Ba suy opposé wu qu'est-ce qu'il va dire aux Sénégalais nan la ñuy wax. qu'est-ce qu'il va ah, dire woote nañu réunion d'urgence. réunion d'urgence pour parler de quoi. pour pour pour pour pour dajalewaat seeni kaake <laughs> jubbanti. xool nu ñuy tawagaatee ci ci langue politique gi du ñoom kese y compris les Pape Djibril Fall barte Barthélémy Diaz parce que aussi euh, comment quoi qu'on di dire euh, élection locale yaa ngi ñëw wax nga ko mm-hmm. législatif yaa ngi ñëw ba ci présidentielle 2029 incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee <laughs> gis nga nag laa lay vraiment nag yow yaay ak man bon Amadou Ba sax je peux comprendre. <laughs> parce que non chef de l'opposition moom ndaamal Kajoor moom neen euh, xale yi nee nañ nañu ko nañu ko jéggal muy gunge muy gunge gouvernement bi léegi. bon man xam nga gis nga nag euh, man je pense qu'il est temps de de réglementer euh, le terrain politique. Mhm. ñii dem élection mënuñu am ay 1 pour cent laal la bulletin yu ñuy jël di ko confectionner. waaw yàq xaalis la yàq xaalis la. te koo xamante ni yow yow xam nga ni carrément li la tax a jóg mooy créer un parti politique boo xamante ni. Mhm. sélection des waaj a ñëw nga ñëw nga ne da nga bëgg a coaliser am benn euh, euh, kii boo teg benn benn en euh, échange boo teg boo xamante ni pour diw bu faloo après moom quota bu mu la sédd mais ñi nga xamante ni ils ne sont pas représentatifs ay parti télécentre la ñu parce que au delà de jëmm ji nga xamante ni moom mooy nekk ci kanam nga xam ko en tant que chef du parti amoo doo ko xam ak beneen militant. ok kooku noonu pour lan ñu koy kii nii Amadou Ba nee na day def remobilisation des troupes mais qu'est-ce qu'il va servir aux Sénégalais pendant douze ans il était avec le président de la République il a été ministre ministre des finances nekk na fi premier ministre aussi donc moom part de responsabilité de la gestion du président Macky Sall moom am na ci wàll. d'accord qu'est-ce qu'il va nous dire lan la ñuy servir. d'accord ndaxte moo dem retraite politique rek c'est pas trop tard. parce que yow da nga ko bëgg a yóbbu retraite politique. très non parce que déjà en 2029 allah peut-être il dépasser l'âge bi nga xamante ne constitution may na ko. pour nga présenter comme président de la république. et quoi qu'on puisse dire à ce rythme là Sonko de Diomaye day wàcc Sonko yéeg. alors am na benn question bu ñu fi am muy euh, wàllu véhicule yi nga xamante ni diaspora bi dañ ko doon indi fii ñu wàññi seen durée bi. Euh, tey jàpp nga ni loolu état bi war na ci teel a jël ay mesures pour yombalal leen ko. waaw bon ça dépend si si âge. parce que xam nga loolu décret moo ko moo ko moo ko defoon te sûrement décret moo ko mën a dindiwaat. mais mais ça dépend aussi si âge véhicule bi parce que tamit vraiment bëgg nañ renouvellement du parc automobile mais mhm. aussi on ne veut pas des poubelles. d'accord parce que tamit wax dëgg yàlla. gis mais parfois aussi da nga ciy gis peut-être oto yoo xam ne dañuy bees. pourquoi pas ñu wàññiwaat âge bi ñoom aussi ñu mën na doxal seen business. mooy mooy li ma wax rek moo tax ma ne la ça dépend de de la durée euh, wala si âge bi oto bi am parce que bu fekkee ne amul benn impact aussi ci environnement bi wala mu benn impact boo xamante ni mën na ko jur aussi euh, ci ci ci dëkk bi je vois pas l'intérêt à que ñi ci nekk di liggéey te nekk ay doomu réew mi ñu war leen cee mën a jàppale. d'accord c'est important alors parce que jeexal nañu Maty. Mm-hmm. amoon nañu plaisir dalal la juste benn question rek bu ma ñëw ci kaaw Ousmane Sonko. mooy position bi mu am à l'endroit de l'Afrique tey mi ngi inspiré mi ngi influencé yeneen pays africain yi pour benn unité jàpp nga ni war na ko mën a réussir aussi laa la yow bëggoo lu baax ankay man mi bëgg naa lu baax ankay ñeneen ñi la position de Pastef à l'endroit de l'Afrique waaw mais ñëpp bëgg lu baax moo tax d'accord <laughs> c'est tout à fait normal positive kay baax na uh-huh. mhm. d'accord Mati merci beaucoup am na koy laajte ndax am nga liggéey ba tey bon là actuellement <laughs> milieu presse bi moom bon amaguma ci job et bon c'est c'est c'est un milieu parce que man maa man maa ko bëgg mais aussi euh, bëgg bëgg naa liggéey koo xamante ni au moins dina am reconnaissance parce que dans la vie aussi bànneex ak naqar ñoo ànd mais je veux plus travailler avec quelqu'un boo xamante ni su su mettee day daw day daw yombul merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal amoon naa plaisir dalal la peut dinañ amaat occasion. amaat beneen jotaay parce que foog ma woo ngay ñëw ñuy débat. incha allah moo bàyyi tàggatoo ak internautes doon suivre ci direct bi. bon maa ngi leen di remercier bu baax a baax ndax kuy wax tamit ku koy ku koy déglu moo moo la bëgg aussi euh, je vous fais un coucou un grand coucou maa ngi leen di remercier bu baax parce que temps aussi dafa cher. soo leen ko jëlee jagleel leen ma ko aussi c'est parce que li may wax peut-être neex na leen moom moo tax mhm. donc je vous remercie du fond du cœur aussi Lalla ma tayel di ko wax mënuma leen lister un à un ndax sinon kon duma fi jógee mhm. mais eh, tous mes abonnés yi nga xamante ni lu ma def neex na leen lu ma wax neex na leen ñoom yow rek la ñuy topp ñu nee man rek la topp dëgg la donc maa ngi leen di remercier aussi eh, pour cette euh, confiance bi nu am à mon di la remercier yow tam bu baax a baax parce que euh, soo amee euh, benn kii nii importance boo xam ne accordé nga ko à ma modeste personne ba topp tout le temps di ma bëgg invité c'est parce que peut-être jàpp nga ni je peut être je peux être utile mm-hmm. donc maa ngi lay remercier bu si loolu di remercier sama yaay mm-hmm. maa ngi koy naan yaay saxari bëgg yow jaajëf topp <laughs> merci beaucoup amis fidèles internautes Sénégal 7 nii lay demee saa su nekk restez connectés dinañu ñëwaat ci suñu ay programme yi maam solo mention spéciale à l'équipe technique tuuti Seydina Djili maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax waa diaspora bi aussi fàttewu ma leen ah Madi Dabo depuis Italie Mame Saliou Bey ah Moustapha depuis euh, États-Unis yéen ñëpp maa ngi leen di jaajëfal yi ñu doon suivre direct direct bi